di waajal bis bu màgg bii ñu dëgmal muy bisub màggal Touba. Euh, ñëw fi nag teew fi ni ñu fi teewoon nege ne sii daaw ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma daf koy def ci jumaay Touba. muy saytu jumaa ji ak waajal màggal gi waajal màggal gi nag ku nekk xam na jumaa ji mbooloo mu bari mi fi ñëw di ziyaar si ak di julli si mbooloo moomu nag war nañ leen a taxawu ci wàllu wér gi yaram ba tax na daayira Muxaddamatul Xidma at yi weesu yëpp mu ci doon def ay jéego ba amaloon benn infirmerie bu am solo ci biir jumaa ji ngir gunge pèlerin yi nga xamante ni ñooy ñëw ci màggal gi di julli si ak di ziar si taxawaay yooyu nag daayira Muxaddamatul Xidma lëkkaloo ko ak ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu wér-gi-yaram fii ci tuubaa muy district sanitaire bi te am ñu leen fi teewal dinañ ci ñëw ci kanam waaye nag mu am partenaire u daayira bi mën naa wax koo xam ne taalibe bi sëñ Touba la xam ne euh, day yëngutu ci wàllu wér yaram di ci dimbalee màggaluk Touba nag depuis daaw mu amoon ndigal lu bàyyi ko woon ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi fi nekk Serigne Touba yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér mu joxoon ko ndigal ci mu taxawu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci fànn googu ci wàllu wér-gu-yaram muy professeur Daouda Ndiaye mii ngeen gis daa ni ngeen si daaw indi woon na fi lowu matériel boo xamante ni xaalis bu baree bari bu takkoo takku la boo xam ne yëg nañ ne taxawaay yi nga xam ne moom lañ doon def ci wàllu wér yaram fii ci jumaa ji amoon na solo lool yokkoon na ko lool nañ taxawaay yooyu bu baax a baax a baax a baax euh, ren itam mu defaat jéego yu mel noonu waaye nag dolli ko gis ngeen li mu présenté ci ay article xëy na man xaw ma lu bari ci wàllu wér-gu-yaram waaye jàpp naa ne euh, bépp taxawaay boo xam ne war nañ koo taxaw ci wér-gu-yaram rek jumtukaay yi ci jëm moom lim na ko fii muy jumtukaay yu baree bare bari bari kon nag lu mel noonu su amee moom itam ñu jox ko kaddu moom mi nga xam ne moo indi jumtukaay yooyu mu sànni ay kaddu waaye bu noppee ñu jël kaddu gi ci euh, infirmerie bi ñoom ñoo koy saytu bu ñu noppee nag dinañ jox sëriñ Abdul Xaadir Ñang mi nga xam ne ci commission sociale euh, ak santé bi nga xam ne ñoom lañ dénk wàll gi ci daayira bi te sëriñ Abdul Ahad bu sa maam Assam mii jiite ko moom dana wax ci turu commission boobu waxaale itam ci turu sëriñ Afiya mi nga xam ne mooy euh, njiitul daayira Muxaddamatul Xidma kon professeur ñu jox la kàddu gi rek gannaaw bi ñu la dalalee jàmm yaa délégation bi nga àndal rafetlu itam liggéey bi nga xam ne def nga ko at yi yëpp surtout daaw depuis Covid bi tàmbalee ba léegi nga daayira bi di leen taxaw ci wàllu wér-gu-yaram ci taxawaay yooyu daaw itam nga def ci jéego bu am solo boo xam ne ñëpp ñëpp apprécié woon nañ ko ren nga ñëwaat ngir feddali ndigal loolu la mun Mountakha joxoon kon ñu ngi lay dalal jàmm di la sant ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma eh, jébbal la kàddu gi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf eh, ma commencé d'abord eh, may tàmbalee wax jërëjëfatee sëñ Touba. Euh, di sant yàlla bu baax a baax a baax euh, di sant ki fi toogal sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal yàlla gudd fan lool bu ànd ak wér képp kuy njaboot gi ak képp ku nekk ci liggéey bi ñu ko yàlla yàlla may leen gudd fan gu ànd ak wér di tegaat sama nuyoo ci loxo sama xarit sama sëriñ sëñ Cheikh Awa Balla Mbacke sëñ Moustapha Bachir di nuyit ñi fi toogal daayere bi sama daayere bi mu xaddamat xidma bi nga xam ne sëñ Afia moo ko jiite ñoom nga gis ñoo nekk fii sama daayere la ndax ndigal gi may jot ci ku tedd gi sëñ Muntaxa ci seen loxo ñoom lañ ko teg ñu am ci taxawaay bu am am am solo lépp lu ma fi def jàppale na ñoom def nañ lu ko ëpp lool ci ginnaaw ndax lu ñu def ba xam ne lii la soxla ci wàllu kër docteur loolu rek dafa kéemaane loolu nag sama naataangoo docteur Thioban ak docteur Ablaye ñu ngi fi ñoom it dama leen di sant bu baax a baax a baax ndax buñ ci jàppuloon it du seen liggéey du yomb di wax ne daal kii wax ak yéen ab taalibe la ci la juddu ci la màgge ci lay dee incha allah rabi moo tax lépp lu ñu fi def ñun waruñu ko gis ndax ki ñu koy defal kooku àdduna daf ko war a fay waxuma jullit yi waxuma murit yi àdduna daf ko war a fay ndax dafa defar àdduna foo dem ci àdduna moom liggéeyam am na fa impact donc bu ñu yàlla jagleel rek ma ànd ak sama ñëwaat àndal ba ñëwaat fii loolu jagleel la loolu loolu loolu loolu wërsëg ëpp ko man nee naa gars yi maa leen ëpp chance ndax euh, lii ñu ko bëggoon def bëri na de ñu ko bëggoon mënoon def bëri na moo tax euh, daw liggéey ko def ko loolu contentement mënu ko dépassé ñu wax ne daal liñ ñu fi indi encore une fois pour dalal xel yi nit ñi la parce que koo xam ne defe naa Sénégal àdduna kenn du fa des fi la ñuy ñëw te nit bu dem fee dafa laaj ñu dalal ko te ñëpp xam nañ ne ñuy dalalee ci xéwal yi ci dëkkuwaay bi waaye ci wàllu sécurité waaye si dafa am boo xam ne moo tax nit ñi di xëy di mun a wax mooy wàllu wér-gu-yaram euh, naam xam naa ne lépp lu war ci wàllu loolu sëñ Tuubaa yor euh, toppatoo na ko lu ko moo tax fii ci am ji nga xam ne fii lañ ñëpp di ñëw mu fexe ba moom sëñ tubaa ba képp ku am soxla ci wàllu wér-gu-yaram mu teg fi ay docteur ay jumtukaay yoo xam ne ku lu xos si sax ñu faj la moo tax lii tey ñu indil ko sëñ Touba moo ñu ko yónni ñu indil ko ko ñun ci dara lu moom moo ñu ko yónni ñu ko ko ñun defuñu si dara donc lépp lu lu faj bi ci xale bu tuut tànk bi li ñu naan bébé fii soog a juddu ba ke màgget ka lépp lu fi nit war a am ñaanuñu ko yàlla waaye loolu la war àdduna du dee ku ci xosu wala nga feebar fi lu la mën ci dal bala ngaa dem ci benn hôpital muy bu Sénégal wala bitim réew mën nañ la toppatoo fii ba pare loolu mooy li ñu indi ci ginnaaw lépp lu wàll médicament kon li ñuy wax ay médicament mooy li ñuy wax per yi li ñuy naan ci li ngay naan li ñu lay jàmm mooy piqûre yi li lay perfusé parce que parfois médicament bu nit ki nekkee ci ak tayo bakkeem lay mën a jël médicament mais bu xamatu fu mu nekk kooku dañ koy perfusé lépp lu docteur yi di soxla ci perfusion yi ak yeneen yi ñu ngi ci biir muy tension ba muy jabet ba muy buur bu metti ba muy gaañu gaañu bi muy miir ba muy ki soxla oxygène lépp lu mu nit soxla pour dalal doomu aadama yi ne leen Touba de defati nañ seen mënën mooy ñu ñu nit ñi rek seetaan leen ak ah, ku ci feebar nga xool foo jëm. déedéet fii ku fi dugg ci kàttanu yàlla ñaanu yàlla dara dal la mais bu fekkee ne jàmm nga fi indi jàmm ngay ñibbiwaat loolu mooy li li tax ñu indi lii te loolu am te nee leen li ngeen gis ci ginnaaw euh, xër moo tax. ñi ma ko santoon nee nañ ñoom doyelu ñu dañuy indiwaat joxaan naa ak instruction docteur Aliou Ndiaye ak docteur Epen ñu nañ même altine li ngeen gis nii ñoom nee nañ dinañ indiwaat yeneen parce que fii moom loo fa indi du doy te xam naa ne lii moom mën na mën na lijjanti màggal gi moom waaye ñeneen ñoom doyaluñu ba ki tëdd ci lalam li ngay soxla pour pour pour su am gis bopp li ko docteur di waxee fooy demee euh, euh, ci sa génne ndox indi nañ lépp loolu nag boo amee aussi damay sant waa daayira bi encore ndaxte nag lii bu amoon te te te kër gi ñu nekk mooy barab ba mooy mooy dispensaire bi hôpital ba fi ñu war a nekk doxul wala am lu manqué kon tey lii du mu la am. donc daayira bi damay wax ma seedeel nit ñi en moi xam ngeen ne man su ma waxee damaa war a wax. ci wàllu wér gu yaram su ma waxee damaa war a wax. ma wax Sénégal wax àdduna ne li ma gis fii depuis aj mu def ko fi ak ba tey ji nii mooy. Touba de jumaa ji ñëwul kenn ci wàllu wér gu yaram ak faj loolu nag bunt ba ci bàyyiwuñu dara dara bàyyiwuñ ko mooy condition yi nga xam ne la ñu war hospitaliser nit ñi respecté na norme internationale moo tax man leen euh, ma insister ci man maay wax nit ñi xam nañu dégg nañu subaa ngi nii incha allah war naa dem ka Vert lu mel nii lañ may woowee foofu pour ma lijjanti leen dawaat ñëw ci màggal ga hmm. ñaari fan laa fay def ndax lii hmm. donc bu ma bindim réew war a mën a woo man may doomu sëñ taalibe sëñ Touba bokk ci kër gi moo mën a wax ne bindim réew que lii am fii amul foofu amul feneen loolu mooy li mu mën a seede loolu erreur weesuwul sëñ Touba di liggéey la nga koy xayma ñoom ñi ko yor mooy docteur yi xam nañ li ci biir loolu rus naa sax di ko ngaa ngi ci gémmiñ euh, voilà merci beaucoup mon nom comme vous le savez c'est professeur Daouda Ndiaye euh, je rends à Allah subhanahu wa et prier pour que Seigne Touba, Seigne Muntaha Mbake ait une très très longue vie pleine de santé. Je suis honoré et heureux d'être encore aujourd'hui ici, dans cette ville sainte de Touba, à la grande mosquée de Touba, connue de, de, du monde entier, avec euh, le euh, Daïre Moukhadim représenté ici par toute son équipe, et par tous les talibés dont je fais pour venir partager avec vous ce que nous avons de Seigne Touba, sur aide de Seigne Touba, à la disposition de ce pour la prise en charge médicale de tout malade qui surgirait durant ce pèlerinage 2022. C'est l'occasion de remercier et de féliciter le personnel médical de cette grande mosquée qui, qui, est, qui est là avec moi, qui est en train de faire un travail extraordinaire, dont le docteur Ablaï et le docteur Choban et Abdullah Faye. Je suis témoin d'une chose, c'est que là où demain, un patient devait être hospitalisé ou en tout cas pris en charge en urgence avant d'être référé dans un hôpital cette disposition et ces dispositions existent ici à la Grande Mosquée pour rassurer les pèlerins qui viendraient ici du Sénégal et de l'étranger que au-delà de la nourriture au-delà de l'hébergement quel que soit ce qui adviendrait à quelqu'un ici dans la mosquée ou aux alentours la personne pourrait être prise en charge dans les conditions les plus optimales en respectant les normes internationales en matière de prise en charge thérapeutique. Je suis une voix autorisée. Je le fais pour le monde. Et avant d'être un partisan, un habitant de ce monde, je suis un habitant Sénégal et je suis un talibé mourix. Et j'en suis très heureux et fier. Et c'est pourquoi j'en profite également pour rendre un hommage mérité à mon ami, mon guide, Chenchao Balambake, qui, depuis que Dieu nous a mis ensemble, ne cesse de m'exhorter à être sur ce chemin de l'exécution des recommandations de Serigne Touba, On a mis ici à la disposition des pèlerins qui vont venir. En plus des locaux et des conditions de travail, ce qu'on appelle des consommables. Un infirmier, un médecin, une sage-femme comprend parfaitement ce que c'est un consommable. Et je ne parle même pas des pharmaciens qui assurent pour l'essentiel le travail ici. En plus des consommables, nous avons également un lot de médicaments pour la prise en charge d'urgence, mais également la prise en charge de routine. Nous avons du, des sérums glucosés, beaucoup d'autres solutés ici. Nous avons des médicaments par voie des antalgiques, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des antihypertenseurs, un extracteur d'oxygène pour ceux qui en auraient besoin. Nous avons ici des antiparasitaires. Nous avons ici des antasthmatiques. Nous avons, nous avons, nous avons. Je pense que tout ce dont les gens ont besoin, on l'a ici. Jusqu'aux anti-ulcéreux. Mais également tout ce qui va avec, notamment ce qu'on a dit, les perfuseurs et tout ce qui est utile dans le cadre de la consultation Ces dispositifs sont là et à la disposition euh, de la communauté qui se rendra ici lors du Magal. Et l'autre lot va, va rejoindre ce premier qui pour le moment déjà pour moi suffisant pour couvrir le Magal. Mais dès, la, dès lundi, un autre lot également viendra ici. Donc pour moi, je l'ai fait et j'ai été parmi les chanceux que Seigne Touba a demandé d'exécuter un travail.

même ceux qui vont avoir une souffrance ici vont repartir sains et saufs et avec des prières exercées. Voilà ce que je voulais dire oui. et je vous remercie. Oui, professeur, vous, vous, avez une équipe, professeur vous avez une équipe médicale ou bien le don sera mis à la disposition de la couverture médicale C'est ce que j'ai dit. Donc il y a une équipe médicale qui est déjà là. D'accord. Si il, oui, non, c'est pas mon équipe. Mon équipe vient en supplément, comme on l'a fait les années passées, en renfort. Ils viendront pour appuyer. Mais c'est pourquoi je tenais à le dire. Il y a une équipe médicale qui est là qu'il faut féliciter. qui est en train de faire un excellent travail. Mais effectivement, on vient en renfort. En plus, pour s'assurer qu'il y a une expertise externe qui est pour accompagner la, la, la motion. di tàttakal suñu gan gi muy professeur Daouda Ndiaye ak ñu mu àndal ñëpp ak euh, ñi nga xam ne nii euh, liggéey bi ñoo ko seetu docteur Thioban ak euh, docteur Aly Gueye nga xam ne nii bu ñu fi tàmbalee ba tey ñun ñoo nekk ànd ko Moukhaddamatoul Khidma pour lii ñu mën ko taxawal ba tey jii bii mooy ñaareel bi yoon professeur Daouda Ndiaye di fi andi ay bagages yu mën a liggéey mu jumtuwaay euh, lu ñu mën a fajoo muy garab ak lépp loo xam ne mooy yëwaleen faj ma muy ay consommable ñu ko ci sant nag di ko ci gërëm ndax euh, taalibe yu mel ni moom bari la nañ ko waaye ñi ñi man li mel ni moom mu néew euh, xëy na li ab soññ lay doon ci ñi des ñi ci moom ndax Sëñ Tuubaa amul ku mu taxawut muy moom muy keneen li fi waaye am rek bu jigéen la ci Sëñ Tuubaa moom la des du bari rawatina nag li nga xam nit mënu koo ñàkk muy jàmm ak xéewal koog man bi nga xam ne nii ñun waa Sénégal ñu ngi ko nekkee lu ci waaye am dee ko gërëm sëñ Touba ndax bu dul woon moom doo ko mën a am leneen li ci topp mooy di ko sant ci humilité bi ndax bu yónnee woon rek mu doy waaye day def at bu ngi det moom mooy déplacé boppam ñëw fii ànd ak mu war a àndal ñëpp mu ci génn kenn ci ñi mu àndal muy rakkam euh, docteur Aliou Ndiaye suñu wëlëre la collègue ñoom docteur Thioban bi la sama collègue collègue grand frère la woon xamante nañ jiitu moom muy dellu foofu ca moom di ko jàppale ci wàllu liggéey bi muy doon ñun ñoo xam ne ni li leen xamee ci ak taalibe la leen xam ak di saytu nit ñi fu ñu mën di nekk xamewuñu jullit nga wala doo jullit na nga doon doomu aadama moo xam soxla woo nga ko ndax ay ay liggéeyam dañ koy suivre feneen fu mën di doon dana dem andi fa dara pour taxawul leen suñu borom nag dana wax ne képp koo xam ne amal nga nit ñi da nga yàgg ci kaw suuf yal na borom boole te sàmm ko te wéral ko di gërëm tamit ki nga xam ne nii ñun moom lañ fiy teewal ndax Touba daa am nu mu tëdd sur le plan médical euh, docteur Dieng mooy kilifa ak région bi yëpp am na ndaw loo xam ne moom la am fii ci district bi mooy docteur Ndeye Maguette xëy na ñoom ñoo fi waroon tooy waaye bu ma fi teyee sañ naa leen waxaaleel ndax man ci ñoom laa bokk te lii bañ ko tàmbalee ba tey ñoo ñoom ñoo ngi koy ànd fii li ñu leen ko mën a leeral mooy xam ne ñu ngi ko ànd ak euh, euh, centre de santé bu 28 ci ndigalu district sanitaire bi ñi fiy ñëw di julli si ajjuma diggante midi ba 4 heures ku fi dara gaar des na la taxawu jox la garab te doo fay dara te loolu bu ñu ko mënee ba tey ji taxawaay ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci daan jàpp démb ak bërki démb muy association pharmacien yu Touba yi Euh, le collectif des de de de des cliniques privées yi nekk Touba le district sanitaire euh, hôpitaux yi fi nekk ku ci nekk wàllu wa nga war a taxawee. bu yàgg ba te yaa ngi koy taxawee ba lii tey ji ñëw nekk renfort mu nekk renfort boo xam ne bu considérable naat ndax bu bu toll bu nii néew na lu ñu koy am nit nag lu mu def nu mu toll war nga ko gërëm gërëm gu ñu toll li ngay def nag defal luñu ko ñun nii sa nga koy defal ndax Sëñ Tuubaa mbiram moom bëri ko bu teg tege ci mbartal la lu ci waaye teg sag ba mooy dal ci kaw waaye moom moom yëf yi moom moo ko yoral boppam na nga xam ne bon Sëñ Tuubaa moo lay ne ni moom nga ca yaakaar moom dana la ko fayal boppam fii daanaka lii lii rek mën na loo xam ne nii ci màggal gi dama mën na ko yor lépp waaye da di màggal mënoo prévoir ñaata malade ngay am. statistiques yi ñu amoon ak yële ci gannaaw lii mën na cee sori lool bu ci bu ci doyut waaye da dut xam màggalu daaw gi wóor na man gu ren gi koy ëpp nit. te kenn xamut ñaata ngay am ci ay nit moo tax médicament du fi doy te comme ni ma la ko waxee mooy bu ñu jógee ci liit mooy ajuma yi day am toujours ay ñu koy lu ñu mën di nekk du doy su ñëwaatee lim ñu dig ne dañu bu ñëwaatee tamit lu ñu ci soxlawut tamit dañ ko fiy téye màggal gi weesoo gàmmo gaa ngi ñëw dañ koy soxlawoo parce que lu mel ni dafay amat ci wàllu gàmmo gi ndax daanaka Touba événement du fi jóg yeneen màggal yi nga xam ne dafa jege jumaa ji tamit lu mel ni bu fi am taxawaay bi mel ni da cay am bu boobaa doo mën à chaque fois nit ki nga di ko woo ñaari yoon wala ñetti yoon ci biir année bi di ko laaj lenn li day nur leneen waaye luñ fi andi tamit am na fuñ koy teg foo xam ne nii ñu koy saytuñ mooy ña ko war a fa saytu lépp lu fi garab docteur Thioubane mi ak équipe bi nga xam ne moom moo yor moo koy saytu loo xam ne sur le plan médical moo ko moo ko moo ko moo koy saytu lépp loo xam ne nii moom lañ fi war a euh, taxaw sur le plan logistique ak administratif man mi maa koy taxawu lépp loo xam ne nii mooy daara ji nga xam ne ni mooy dalal nit ñi moo ko war a taxawu sëñ Abdoulaye mi moo koy taxawu. Euh, ñi intervenir tey bi jógee ministère ay équipe lañuy doon yoo xam ne nii mooy fii du dakk saa su ne bari bu fa jógee ay jigéen ñi. dana am ay ñaari jigéen ñu fa nekk comme médecin médecin bu ci nekk dana am ay secourisme yoo xam ne dañu ñëw ko ci wàllu pousse malade ak ñoom nii ngeen koy defee dina am ay ambulance yoo xam ne koy prépositionné tamit tamit bu weesoo loolu tamit am na benn daayira boo xam ne nii ay daara murit la ñun ñii ci lañ soqi ko docteur Ndeye Maguette ci la soqi ko Touba assistance médicale waxuma sax jumaa ji waaye lépp loo xam ne nii bokk na ci consultation bi nga xam ne nii mooy am ci màggal gii nii dooleel nañ leen ci lool ba day hôpital Cheikhul Khadim bii nga xam ne nii moom lañ dee yaakaar naa la ëpp ci ña xam ne dañu xam dëkk bi ni muy doxee li fi war ci norme li fi war tamit ci pas-pas pour saytu matériel bi parce que màggal baax na waaye màggal fi jógee matériel bi yàqu tamit lu am njariñ yooyu ko moom la ñoo

xéewal yu bari yu mu fi defal andi ko fi pour taxaw leen ci wàllu ñam yi loolu tamit ñu ngi koy yeesal ak cant mu jëm ca moom ndax yooyu tamit daa doon yu ci baax ndax kii fi nekk di liggéey am na lu muy war lu ni mu taxawoo malade yi am na loo xam ne da ko soxla ko bu ñëw waxtu balaa ñoo dellu dem feneen keneen di leen remplacer ñëw ñu mën a xéewlu xéewlu gi tamit doyoon na daaw waaye dañuy ñaan yàlla rek ñu gën koo yokkaat ba mu gën a te muy gën di teel a ñëw loolu dina lekk waxtu sàngam nit waroo lekk yenn waxtu yi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëñ professeur ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Daouda tey nuyu mbooloo mi nga àndal ñëpp ci turu sëriñ Afia Bousso ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñooy taxawu liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ak ci bànqaas bi nga xam ne ñoom nga wuy si tey muy commission sociale bi ci sëñ Abdoul Ahad Bousso jiite ko. di yëkkati kàddu rek ñuy kàddu yu gàtt ndax defe naa li ñu waroon wax leen li wax nga ko li ci def sëñ Abdou Lahad wax na ko te kenn la ci ñun li nga xam ne yow it kenn nga ci ñun kàddu yi nag kàddu yu sedd lay doon mën naa ne sant gi moom xanaa bu ñuy sant dañ lay sant ci santuk donga waaye ki war a sant mooy sëriñ Mouhamadou Mountakha wala sëriñ Afia mi ko jiite ndax moom moo la joxoon ndigal nga jëfe ndigal kon cant gi moom moo ko moomee waaye baax na tamit nag nit bu fekkee dañ laa booleek moom mu jëf baax na nga seede ko kon suñuy kàddu ci sedd yooyu lay jëm li ñu ci warit mooy seedeel la ko ci sa teewaay bu ñu noppet bay def li ñu war a def ci ginnaaw maga mooy évaluation bi ñu seedal ko ki nga xam ne moo ñu boole woon ak yow ci xamal ko ne ko ñu la santoon def nga ko ni nga ko defee woon daawit ñu yëkkati kàddu yi rek muy kàddu yoo xam ni kàddu yu sedd la ak i ñaan du la xamal ne def nga jëf ju defate nga sax laay wax jëf ju baax a baax di jëf joo xam ne ju munta ñàkk la ndax toog nañ fi barki dem ci benn émission rek te lu mel nii lañ doon sàkku mel na ne diglu nga ko waaye wuy sa nga tamit woote boobu ndax màggal moom bernde la sëriñ bi wax jaamu yàlla ak bernde la jaamu yàlla nag nit ki bala ko man faw mu wér lii sabab ak wérit mooy fagaru bu yàlla defee ba nga xam ne tamit agsi na tamit lay tax nga man ko mooy nga am lu la ci mën a jàppale ba loola teggeeku te loola moom nga ñu féete nii moom nga ñu defal nii tey kon nag ñu ngi lay seedeel te di la yëkkati kàddu ci turu waa daayira Muxaddamatul Xidma yëpp di la xamal ne daal yoral nañ la njukkal ak i cant ñaan gi nag ñaanuk donga lay doon ndax sëñ Muntaxa war a ñaan waaye ñaanuk dongaat wala ñaanuk jullit bu bégit defe naa am na solo ci moroomu jullitam loolu moom ñu ngi lay xamal ne ci sunu xol ñu ngi ciy jël ay ñaan yu kawe kawe ak kàddu yu sel ak yéen ju rafet rafet di ko jëmee ci yow di ko jëmee ci mboola mbokk yi nga àndal yëpp ci jëf ji nga xam ne jëf nga ko. sëñ Abdou Lahad nag dafa am lu mu waxoon ci liggéeyal borom Touba dafa mos a wax sa sëñ Moustapha Bassirou ne ko lu ma yërëm kuy liggéeyal sëriñ bi ndax kay fay laa xam kon man na laa dugal ci cadre boobu tamit. xanaa ñi xamut waaye ku xam te mos ku mel ne Cheikhul Khadim ci jëfal ko yaakaar naa ne loo ko jëfal da ko xeeb te tamit doo ci am lenn loo ci regretté ci ne bu ëllëgeet incha allah na nga ko bëggee da nga ko ni amee kon loolu li ñu man ñun mooy seede la rek bu ñu noppi bàyyee la ak moom li nga ciy fas ak li nga ciy yéene nag yaa ko xam ñi ngi ñaan daal lu mën a doon dara rëyut ci moom ci suñu borom ndax daafan mu daafa lay faye moom ni doomu aadama di def boo ko defee benn mu jox la benn suñu borom ëpp na loolu ndax li tax mooy moom léppam dafa baax nanga si na yu baax rek ci nekk moo tax ñu ne boo defee benn mu defal la ko fukk wala ñaar fukk amut bareen magasin boo xam dafay def ab safaan moo tax ñu ne ku def benn bu safaan suñu dala koy delloo ndax amut fu mu ko denc baax la am nag te lu baax nga jëf ñu ngi ñaan na la ko fi nga xam ne moom foofu la foofu la toll moom buy fay faye la ci foofu faye la tamit ci sunu yéene ci yow ndax dëgg yàlla ndax féete nga ñu foo xam ni bu lii amutoon yi dañuy sonn rek waaye des na ko jéem baa fu na dana ci fa dugg ngir tuñ tuñu ngir am lu mel noonu kon nag ba yàlla defee nga féetuñu foofu dégg ndigal li la sëriñ bi sant nga jafe ko te sëriñ bi waxoon ne waqdi xawaaija lasina daamoo fi xidmati wa hablahum ma raamoo bayit woowu moom moo ñaanal boromam te moom wax nañ ne lépp lu mu bind rek fekk na suñu borom nangul ko ko ba noppi fajal ma aajo yi ñi nga xam dañ may liggéeyal kon nag yàlla na la fajal say ajo te fajal ñu suñuy ajo te fajalee mbooleem aajo yi ku dégg suñu kàddu kon gudd gàtt defe naa mën na ñaamale kàddu yi foofu sant la gërëm waaleykum salaam wa rahmatullahi